moo xam bésu altine la wala fukki fan ñaar ci weeru gàmmu nga ni dama koy màggal ndax muhammad ci la judd ku xam loolu rek defiyee naa la nga wan ma ko ku ko xam képp ku xam ci saxaaba yi benn saxaaba bu musa toog benn bis yokk julli wala mu ñàkk nelaw wala mu naafila wala mu jaamu yàlla wala mu sikar lan moo tax nga di ko def parce que ci la Muhammad juddu ku ci xam benn saxaaba dimbale ma ngir yàlla nga leeral ma ko ma dellu ginnaaw ku xam ci taabiina yi jarul sax may dem ci taabiina yi ginnaaw yonent bi su nit jógee nag ne bidaa am na bu rafet vraiment am na bidaa boo xamante ni war nañ koo mën a rafetlu daal te yonent bi ne kullu bidaatin dalaala gis nga mbokk yi kullu bidaatin dalaala dafa leer nañ saay-saay rek moo ko bëgg a lëndëmal waaye daa leer nañ ndax ki ne bidaa bu rafet am na ndax du yonent bi nga bëgg a tuumaal alquran de nee na yonent bi yaa ayyuhal rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa lam tafal fa ma ballagta risaalaat moo tax boo fi toogee ba léegi naan gàmmu bidaalaak dangaa tardé ah, dama ne la biddiw yi bàgg biddiw yi màggal nañ yonantu bi rabi xàll yi màggal nañ yonantu bi ci dajee juboo rabi géej gi dajee nañ màggal yonantu bi asamaan si màggal na yonantu bi suuf si màggal na yonantu bi lali buur ya sax buur ya la ñuy bon bon seen lal ya na yonantu bi safara wañ doon jaamu junnee xat xam junne kan màggal na yonent bi ci fay bu xayrata saawata màggal na ko ci ñiis lii la lépp kon màggal na yonent bi natir bi màggal na ko kon boo fi toogee naan kenn du gàmmal yonent bi ngaa dof abi jëlin sax abi lahab li muy bon bon màggal na yonent bi nda keroog ba mu juddoo su way ba tuddi ab jaamam wax ko ko mu ne ko goreel naala la bis ni yàlla loo ko lebal mu fay la ko rawat na nga jaaree ko ci buntub yonent bi génn na àdduna gis na ko di abbas nu sa borom def ak yow mu ne ko xaw na maa rey ci mbugal ngir li ma bañ soppeem bi waaye ah kay bisu altine bu jot nag bisu gàmm dañ may génnee ci tuusi safara yi di ballal soow samay baaraam ma koy macc foo ko jëlee mu ne soow mi sama jaam bi joxoon yonantu bi mu nàmp ko di suway batu ma bég ca ba goreel ko moo tax yàlla di ma goreel ci safara soow mi ko sama jaam bi lebaloon sama jéebéer bi moo tax yàlla di ma ko fay sama baaraam ma koy macc kon boo taxawee bidaa la abi lahab ne tuug bu ko fi waxeeti su ma sañoon xat mi yëpp di gàmm mawlidun xafafa al azaba an il abi lahabin man daawu shaqaawu la maam xalifa waxoon ca mir aatu safa xam baax na waaye xàmmee ko solo waaye boo xamul noppil soo xamee te xàmmee woo noppil soo xamee xàmmee te ràññee woo noppil bala ngaa wax daal da ngaa war a boole xam xàmmee ràññee id qaamu fa qaalu lu cay tegu rabbuna rabbu samaawaati wal ardi lan nad'u min duni ilahan laqad qulna idan shatata waaye boo xamul commencé mbel mbali yàq rek ngay def waa waaju baax ja suñu baay ja xaaji Ibrahima mu ne xam-xam bu tuuti bala nga xam bonam mi ngi mel ni ndox mu tuuti mooy sangoo dem ba saabu sa xarxaram bi xëbal sotteekoo ndox ma mu jeex taxamaatoo ma neen ndox su boobaa ñàkkoon na sangu di sa tilim baa ko gën xam-xam bu ndaw noonu la mel borom bu waxee rek yàq munu ca dara jaxase rek euh, dugal ca lu ca lu ca bokkut ak génne ca lu ca bokk te loolu lañ bëri la ci ji jamono. yonent bi juddu ñëpp bég kon ndeke bi juddoog yonent bi bu xamee lu ca bég xam ñu ca bég xam nañu ca bégut bay bidaaxal seeni borom di jéem a dugal seeni borom safara loola lépp. mi ngi mel ni day delluwaat ci iblis ma ca bégutoon rek loo rek la ña ca bégoon nag ba def ca lañ ca def dañuy delluwaat ca ña koy ña cay bégee rek di ca rendi ay nag di leen nit ña di leen waxtaanal ci tu bi jaar jaara ak la ca xaju. muy Tawfekh kenn xamul fu